sante borom bi seede ak kennam seede na muhammad jaamam la ndawam la mu yónni yal na julleem ak i salmalam tabbi ci moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i ñoñam ak i sahabaam ak liggéeykatam bu baax bi ak képp ku roy sunnaam ba bis penc mbokki jullit yi noo ngi leen di ndokkeel ci weer wu yees wii di weeru muharram mel na ni tamxarit nam ba noppi weer la woo xam ne day xamal nit ñi di leen fàttali bokk na ci lim leen di fàttali azaka daa nañ def saa bu jotee moo daan doom weeru génne azaka génne ko nag nañ ko war a génnee day fàttali itam ne ah yow kat daaw daaw tamxaritoon nga tey sekkewaat nga ko bay tamxarit kon mu ngi lay fàttali ne am na at mu jàllaat ci sa dund te xamoo ñaata atala dese boo ko xamoon mu neex waaye da ko dul xam dalay fàttali ne la ah beneen at day jàll na ci sa dund kon nag ndax yéen a ngi isaab seen bopp isaab mooy nga seetaan teg sa bopp ba xam li ma defoon daaw weer wi dikkaane di ma fàttali li ma defoon daaw lan la laajaat sa bopp bu baax fàttaliku itam weeru tamxarit bii de amoon naa dëkkandoo walla soppe boo xam ne mu ngi fi woon ak man te tey ma nga ca barab ya loolu lépp weer wi dala koy fàttali mi ngi fi woon ak man te tey ma nga ca barab ya te xamoo lu mu fa nekkee moo tax wax nañ ne yàlla dafa am garab goo xam ne da koo bind wanqas yaa nga dem ba ca ron aras ci ron aras nee na xob bu ci nekk bind nañ ci turu jaam ci jaami yàlla yim bind su ab diggam jotee ni ko malekul mawti di xame nee na xob benn xob day daal rot ñëw ci moom fi mu toog ci bureau ñu bind ci turu jaam bi mu xam ne jaam bi moom du génn at mi laa ilaha illa su ko defee mu jël ruuxam moo tax boroom xam-xam yi way ne na waaw man man nan lay nan laay nekke ci fo fekk dee nga may sàkku nit ki nan lay nekke ci fo te dee di ko sàkku mooy ñun ñëpp ñun ñëpp nag waaye ñi ngi fo ñu ñoom seenum xel newul ci fo moo tax nan lay nekke ci fo te dee di ma sàkku daal di wax ne moom day xalaat dee dong doy na walif ngay fo wa inna fil mawti shughlan lii anil la'ibi xalaat dee dong doy na ma ma nekk di fo di def jëm fa daa di wax ne sama mbari bët yi bu fekkoon ne day xool li ñu ko bindal do do kon kon day duma xër mukk ci dikk sàkku àdduna ak di ko njëkkante su ne mari bëtam yi day xool li ñu ko bindal du nekk di sàkku di àdduna waa di mbaa di ko njëkkante waaye nag yàlla nee nag dara melu koo wecc dara melul ni moom moom yàlla te nee nag koo ci xër ci àdduna dëgg-dëgg daal mooy ci nekk ci coono dëgg-dëgg danañ yàlla musal xër ci àdduna wala buñ ca demoon bay xërit lañ cay xër dañuy wax ne nañ ko nañ ko nañ ko jaamoo yàlla na yonent bi waxoon ca ca ca doju Uhud bi mu ko xoolee ànd ak benn saxaaba ne ko doj bi de bëggoon naa bu aka neexoon mu nekk wurus moom su ko neexoon sax mu def ko waaye day jàngale yonent bi daan jàngale ne ko aka neexoon mu nekk wurus mu ne kon nooy def mu ne kon damay jël di joxe rek joxe ci kanam joxe ci gannaaw joxe sama ndeyjoor ba jeex tàkk sallallahu alayhi wa baax ah kon wuti naa ki nga xam denc banque ay million lum denc xeeb ko ne naa dolli te xamul ndax dundam gée ngi wàññiku de laa ilaha illa xamul ne dana ko lekkam déet te am na doomu adama yi sonn kon nag bu ñu kër goo xam ne du këru kërug saxawaay wor nañu sàkku kër gee nga xam ne fa ñuy sax te xam ne fan yaa ngi dem de ci gaawunti nit ñee ngi nelaw rek nelaw gi yëpp njëkkan ci àdduna rek ci lañ ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn bés buy jàll lu dul am na ñaari malaaka yoo xam ne day woote nit ñee ko du dégg naa leen ee eh, yéen nit ñi biñ leen fi indee kat xamal ne dañ leen a waajal ngeen faatu ay nit ñi duñ ci bàyyi xel biñ leen juree rek ngeen xam ne leen faatu bu ñu nee nañu liqaam ci nodd ci nopp bi nodd ci kii bi na nga xam ne am na lu des da des mooy ta kii ci si jaat rek jullee ko ku liqaam ba nodd ba noppi lu des lu dul julli dañuy wane dundu aadama ni mu gàtte moo tax nit sax su juddoo dañu naan imaam day eh, eh, kii ci nopp bi kii ci nopp bi su ko defee da koy won ne ko ah léegi nga jóge fi comme juddu nga ba ne fi ci àdduna dootu fi deset ñun nag ñooy jàppee ne loolu dafa yàgg waaye yàggul de moo tax nee na malaaka yi loolu lay wax ne leen dañ leen a jur ngir ngeen faatu waaye yéen a ngi tabax rek loo xam ne day ràpp rek du ngeen ko dëkki wa tabnuuna lil xaraab te dañ leen ci xisaab nag mbugal leen ci bu ëllëgee loolu ngeen di def kon nag nañ farlu ci jëf ju baax bala moo raw nañu tuub tuub bu sell ci suñu borom te bàyyi ndox gi nga xam ne ci leen nit ñi nekk ñenn ñi di dajale rek bañ koo dundale ci yoonu yàlla ab jullit moom lu mu am bénéfice mooy mu dundale ko ci yoonu yàlla yàlla tegal ko ko fële te ñu defar suñu tuub ngir lii di ñëw bu ëllëgee bés boo xam ne bii kenn du ko jaas bés bu yàllaa ngi wax ne bés bu asamaan si xare ñu wàcc malaaka yi kenn dootu wax dara waxatuñu réew sàngam walla réew sàngam wala continent sàngam wala nangam dara dootu am yàlla rek mooy am nee na bu boobaa al mulku yawma idin al haqqu lirahman bu boobaa ngóor yàlla rek a koy moom kenn du tàllal loxoom lu ñu ne kii amee kii fii kii fii la ndax mi ngi wax bés boobu nañ ko ragal yàlla mu wax ne wa kaana yawman alal naa asiir bés boobu day su ñëwee dana metti lool ci ñi wa doon yàlla yal na yàlla boole ci ñi ko gëm mu wax ne itam ak bés boobu mooy bés bi nga xam ne ki daan tooñ dana matt loxoom daa di ne aka neexoon la ma yonent ba waroon wax ma topp ko aka neexoon diw du ko def ab xarit bari na ñoo xam ne seen xarit leen dugal ci lu baaxul yaa laytani lam attaxis fulaanan qalilan ñu ne ko lu tax mu ne daf maa réeral gannaaw bi alquran ñëwee di ma won yoon ma defe ne moom fim ma teg foofu la de du foofu de du foofu wa kaana insaani xasuula kon nañu gaaw tuub suñu bakkaar yii ragal bés bi nga xam ne marwa dana metti lool nee nañ raj raj loo jaam ñi ak nokki gañ fa nekk di nokki ak tàngooru sam eh, jant bi nee na dana tax ku ci nekk saw ñaq dana kawe ba sut yi sax ya saw yaram da ñaq ba mu sut saw yaram mel ni ku nekk ci dex mbaa ci géej te lépp ñaq la nee na ku ci nekk nag fu saw ñaq yem rek mooy li nga fi defoon ci say jëf ci àdduna ji li nga defoon ci say jëf ci wala wala ñu saw ñaq ba yem nee nañ sax daañu fur bu keroogee tàngooru jant bi tàngooru ci at wala yasubilah foofu métti na mbokk yi tàngooru fukki at xool leen tàngooru benn at rek bu ñu nañ jël beneen at jaar ñetti at tàngooru ñetti at ñu wàcce ko kon mel na ni moom kon adduna bi day jeex sax dañuy faatu duñ ko ne leen ak faatu amul moo tax yàlla da koy fuul tàngooru fukki at ker tam amu fa benn ker boo mën a dem di seelu li dul keru aras te keru aras ñi jëfoon seen jëf ju baax rek ñoo fay am li kem lañ fa defoon ca keroog ñu keral leen yal na yàlla boole ci loola moo tax mu ne bari na fa bu keroogee ñoo xam ne ñu ngi xéewu ñoom ci keru aras du ñu yëg coono waaye bari na ci ñoo xam ne ñu ngi yuuxoo ko jooy ci tàngooru jant bi am na yàlla musal ci loolu mbokki jullit yi yoon wu baax bari na lool te yàlla wax na ne lépp lu ngeen def ci lu baax xam naa ko képp ko def misqaala zarra yàlla nee na danaa la ko fay zarra waxoon nañ ko fi lu tuuti la loo xam ne boo ko waccoon ci ngelaw li sax du daanu ngir tuuti waaye yàlla ne yàlla moo dul bàyyi dara wax ne soo ci defee ci lu baax danaa la ko fay moo tax Abu Zar dafa masalaaj yonente bi na ko jën jëf moo gëm gën mu ne ko ngëm yàlla ak jihaad ci yoonu yàlla mu ne ko waaw boo doon goreel jaam tey riqaab bana ci gën mu ne ko ba ci gën a baax te ëpp njëkk waaw mu njëkk dañuy jàpp jaam yi di ko jaam kii de kii de lii laa ci man mel ni jur fas yi laa ci mën wala fas yi moom mën nga ci lu bëree bëri mu ne nag ba ci gën a baax ci ëpp njëg moo gën ci ripaas mu ne ko soo ko munul mu ne ko su ma ko deful nag mu ne ko nga dimbale koo xam ne dem na bay sànq wala koo xam ne mi ngi góor góorgóorlu koo xam ne këram jaaxal na ko te bu ngeen ko xettaliwul yéen mbokki jullit yi suturaam dana xawwi ko tasnau saanihan loolu bari nañu ko gis waaye da ngay toog rek ba xut ba suturaam sa xawwi wala koo xam ne ma ngay góor góorgóorlu te mënuta kii te foo gis rek mi ngi góorgóorlu ngir lu nu mu dunde nu mu goree yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soo ko mënoon nga dimbali kooku mu ne ko su ma lottee ci loolu lépp nag yonent bi ne ko comme ci loolu lépp saw ay téyeku ci nit ñi takuffu sharraka ala naasi ba bul lor kenn nee na soo ko defee sarax lay doon ci yow bu am njariñ soo lorul kenn ndax nit ki su fekkee ne dem nga ba mënoo jariñ kenn waaye bul lor kenn waaye am na ñoo xam ne tey jëriñ ñu waaye saa bu ñu génnee du sàcc la def ku ñu agressé la ñuy seet ñu kii waaye bu fekkoon ne mënuñu sax amuñu doole waaye ñu génn rek jàpp seen njàmbur ñu lor kenn loolu rek yàlla da ciy bindal tuyaab waaye am na ñoo xam ne mënuñu ko aw ñu bindal leen bàkkaar ndax doo nga romb yëfi jàmbur jël ko da nga def neneen ak neneen kon nag mbokk jullit yi nañu xalaat képp koo xam ne kii xam nga ne sa dund day jeex bu ko jeexal mukk ci ci li ñàkk fayda Omar ibnu Xataab daana wax ne day leen day leen fàttaliku waajooju nga xam ne fu mu jaar bànneex jóge fa di ci jublu mooy malikul mawti te kër yëpp lay dugg de nee na day leen bari lu ngeen koy fàttaliku daa di wax ne du ngeen ko fàttaliku ci lu tuuti lu dul mu doy sëkk nit ñi nag loolu lañ dul def nañu fàttaliku ci lu tuuti maanaam yow boo amee lu tuuti danga naan ah sama morom mi xoolal ni mu def ah am ni moom waay waaye boo fàttalikoo ne ah man ka diir bu gàtt léegi tey ñu wàqi ni suul ma malakul mawti xaw ma fan la may fekk su ko defee loolu nga am si néegu ñax boobu dana la doy sa lu tuuti loolu dana la doy sëkk moom la Omar wax nee na su ngeen ko dee fàttali ci lu tuuti day doy sëkk ba doo tax di jàmbat njàmbat lu bari lépp ñàkk fàttaliku dee rek kiy fàttaliku dee du jàmbat ci xamul ndax suba dana dana ko fekkam déeg du bari am njàmbat mu ne mu ne itam doo doo ko fàttaliku ci lu bari lu dul da koy néewal boroom alal boo gis mu koy fàttaliku day mel ni amul alal koy néewal ndax day jël rek ci def ngir jëm yàlla ba alal day mel ni daal tegu ko fenn ndax dee gi muy fàttaliku te xam ne ne dana ñëw de ku gëmul di day ñëw yonent bi Omar la moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee na bari doo gis waa juy fàttaliku dee lu dul da ko fekk ne doo ko fekkat doo ko fekk ci am po doo ko fekk muy iyaanal kenn doo ko fekk muy bari xemmemteef nee ku ko bari looy fàttaliku doo nekk ci mpo doo iñaane kenn xam nga iñaan moom daanaka dafa ñàkk xam rek waaye ki ngay iñaane jëru ko jëru ko du yàgg jëru ko kon yow doo bari xemmemteef moo tax boroom xam-xam yi dafa wax ne bu fekkoon ne sax ñun ñii tey ni ñëpp tey ñi ci jàkka ji tey masalan dañ ñu ne yéen kat yéen kenn du ci faatu lu dul kenn kenn dong mooy faatu ci yéen te kii faatu waxuñu ko ah yéen de moom mbooloo mi ni muy bari bari kenn dong ciy faatu ki ko wax daal di wërañ dem te li mu wax xam nga ne dañu la koy def waaw ndax ku dem doo xalaat ne ndax man mbaa du man la kon mbaa du man la ku ci ne daan mbaa du man la kenn du nelaw dañuy jooy ñépp dañuy jooy ndax xamuñu ci kan la nee na nag su fekkee ne comme noonu la waroon a nekkee waaw bu ñu bu ñu ñëpp nag xamee ne dañuy dee kon waaw càggante gi kon fu ñu ko teg te ñu ñëpp xam nañ ne dañuy faatu kullu nafsin zaiqatul mawt te li la koy woon mooy ñu baax ñi ngay jàkkaarlool naa dem tey barabu diw siyaat anamu ak li mu fi def ba ci barabu ku tedd ki buñ fa dem boo fa demee rasulullah di ni ñi di jooy rek waaye waxoon na ko innaka maytun wa innahum maytun donte yàlla da leen di jox doole joo xam ne danañ def tasarruf waaye li yàlla wax moom danañ ko def moom moo tax yàlla rek a mat a ragal def tasawur it lim la wax moom danga tëdd fii ñu ne fii mooy sax moom fii lañ la denc kooku mooy boroom kàttan yal na yàlla def ñu ragal ko dëgg dëgg ragal yal na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar yi jiitu woon jéggal ñu suñuy bakkaar yi mujj boole ñu ca xaaj bu jëm déwén ak déwén jéeg yal na yàlla boole ca xaaj bu jëm déwén ak déwén jéeg ndax ñu man ko fee jaamulum ñu gërëmee kenn du ñaan gàtt fan gàtt fan baaxul yoon sa noonu la bu leen ko ñaan bu leen ko ñaan du tere nag ñuy waar nit ñi ndax léeg nit ki day testé si rek ba yàgg ñu xëy rek léeg-léeg sax da ngay ñu ñu ne kar téléphone na la ah waaye sa mbokk day nangam ak nangam lay jaaxal da ngay taf da ngay taf bàyyi ko woon xel looloo tax ñu di leen ci waar nga xam ne yow du la bett bala mu laa bett nga ne ci lu baax bu fekkoon ne nekkoo ci lu baax it nga delluwaat nekk ci lu baax dañu yàlla defal dégg ak topp gannaaw loolu li mbokk mi waxee fii sànq doon nañ ko fi wax suñu xutba bu yàggul doon naa leen wax ne soxla nañu ndox waaye noonu laa leen yàlla li mu am du jeex de noonu laa ko waxee woon bu ko sottee ñu doyal sëkk walilaahi xazaa'inu samaawaati wal ard kon nag na ci ñépp ànd ak dalum xel bàyyi jàmbat yi ñoo ko doon ñaan bàyyi jàmbat te gëm yàlla rek te xam ne mënoon naa nekk sawara bu nekkoon sawara nu ñuy def bu nekkoon sawara nu ñuy def dara léegi nga dégg ko ci réew réew réew kii gis ñëw ñoo xam ne ay hectares yu bëree bëri day ñëw sax te dama ñoo defar ay garab yu rafet ak def seen i kër mu ñëw lakk lépp faataale ci lu dul jeex te mënuñu ci dara yàllaa ko def te dañ ne garab yu bëri wa ab taw lay wàcce waaye yàlla sawara la leen wàcceel ñun mu wàcceel nu ndox yàlla na yàlla def ñu ay jullit dëgg-dëgg yaxfirullahu lii wa lakum wa li saa'il muslimina amin